moo tey ndaje bi nag dañ fi daje woon ngir sargal ay jàngalekat yu nga xam ni dañ leen tàggatoon ngir ñu defar ay jumtukaay pour ñoŋal njàngum xale yi ci jamono ju nga xam ni maanaam yenn feebar yi yu mel ni Covid 19 bi fi jaar day am parce que su école yi tëjee xale yi war nañu mën ñu leen di jàppale seen kër léegi nag am na jàngalekat yoo xam ni dañ ci wane xarañteef. tey ñu leen doon sargal ñu nekk eh, ci limu juróom-ñeent ki nga xam ne nag kuréel gi nga xam ni moo jàppale loolu mooy UNESCO Confemen ak francophonie ci benn mbir mu ñu tuddee Imagine École nekk na benn jumtukaay bu nga xam ni jamono ji nga xam ne école yi tëj na ci feebar bi jàppale nañ ñu jàppale bu baax jàppale ñu fexe ba njàng mi di dox fexe ba dara taxaw té kuréel gogou ba légui ma ngi fi kay bob ba légui ma ngi fi légui day fexe ba même su benen jangoro ñëwé ñu mën jàng jàkkaarloo ak mom donc tay nekk na lu am solo ndax euh, ministère de l'éducation nationale ci bopam biñu génné ci feebar bi dafa tëgg tëgg benn projet bu ñu wax PROMET projet du ministère de l'éducation pour le téléenseignement manam mu nekk benn kay bu nga xam ni dinañu mën teg ay pexe jaarale ko ci téléphone yee ordinateur yi ngir xale bi di jàng ba dara bañ a taxaw loolu nag UNESCO jàpp na ci bu baax Confemen jàpp na ci bu baax jàngalekat yi dugal nañ ci seen loxo ba tey tey daal dañ doon sargal ñaax ngir ñu gën a am lim yu gën a takku moo tax ñu tànnoon juróom-ñeenti jàngalekat si seen liggéey ñu leen doon sargal. Euh, ministère de l'Europe et des affaires étrangères bu France ak ministère éducation nationale ak de la jeunesse daf ko jox daf ko ci may benn pàcc bu am solo euh, ba nga xam ni Confamène tey jii fukki dëkk yi nga xam ne ñoo lëkkalee initiative bi ñu tuddee Imagine École Confamène dafa fas yéene liggéeyandoo ak ñoom bu ko defee defee mu saytu lan mooy seen avancée c'est-à-dire ñoom fan lañ toll ci projet bi lan moo mun a nekk gàllankoor ci projet bi bu ko defee ñun ñëpp ñu toog ñu gëstu pour xool léegi yan tëralin la ñuy jël pour que projet bi ñu mun ko taxawal bu baax ba pare mu nekk projet boo xamante ne dootuñu dootuñu ci dellu ginnaaw ndax numérique bi mooy euh, informatique bi ak yooyu euh, buñ ko jëfandikoo ci njàng mi li xewoon ci Covid bi déjà jàppoon na ci mais quel que soit crise bu mu munti doon rek donc donc euh, fait cette initiative qui est une initiative de résilience du système éducatif euh, des dix pays francophones auxquels on a décerné aujourd'hui euh, les récompenses aux neuf lauréats du concours c'est une initiative en fait qui euh, comme l'a expliqué le directeur, c'est une initiative qui a pris sa source lors de la Covid-19. Et à ce moment-là, l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale, ils ont créé une grande coalition mondiale justement pour euh, alerter la communauté internationale aux besoins de la continuité du système euh, des apprentissages euh, du système éducatif. Et c'est dans ce cadre-là que cette initiative a été faite pour les pays francophones, comme ça a été rappelé, avec le soutien du gouvernement de la France, du GPE, du Partenariat mondial de l'éducation, de la Confemel du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNESCO, pour justement, en fait, dans cette période des fermetures des écoles, faire en sorte que la continuité pédagogique ne s'interrompe pas et en même temps que l'initiative en tant que tel, sert de base pour répondre à des questions, à des situations particulières qui peuvent venir, notamment en situation de crise. Et dans ce cadre-là, c'est pour cela qu'il y a des formations qui sont faites au bénéfice des enseignants pour développer, avoir la technique de pouvoir déployer des cours par les plateformes numériques et de pouvoir les déployer au bénéfice des élèves. Ce n'est qu'un début, l'initiative va continuer. Et à l'occasion même de, de, de, la transformation du système éducatif, le sommet qui va avoir lieu à New York, c'est un des, éléments qui vont faire l'objet de discussions auxquelles chaque pays est amené à, à, à développer une vision en fait, de comment pallier à ce genre de situation si ça arrive dans le futur.